Yamari dole. Wow wow. Yamari dole. Wow wow. Yamari dole. Yamari dole. Yamari farm. Wow wow. You're a new beggar. Wow wow. You're a new satan. Wow wow. You're my fam. Wow wow. Michael Jackson, Peppa Gay Bang. Wow wow. Ah ah. Mimi Nino. Ah. Mimi Nino. Ah. Mimi Arif. escucha. ¡Ah! Mi, mi niña. ¡Ah! Mi, mi niña. ¡Wow! Mi, mi niña. asalaamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam. nuyu nañu képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show tey la fukki fan ak juróom ci weeru novembre deux mille. ñu fas yéene wax suñu programme nan lay tëddee tey kenn ku nekk daal di koy xam di as. kan mi senegal di ñu bàyyi xel 18 heures ngi soog a teg 2 minutes mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. seeti maître El bi nga xam ne mooy avocat Barthélemy Diaz wax na wax ju leer nee na nag ku laal Barthélemy Diaz moom nga laal te bañu ci ba deret tuuru ndax moom avocat la te képp ku mu layal ndam ngay am maître El Hadj. mbokk yi bu dinañ dem seeti keneen koo xam ne. indi na ay gindi yu leer nañ ci li nga xam ne moom la réew mi joxe di Macky Sall bi ñuy takkal benn médaille bu rëy ndax waa France ak laa waa États-Unis nee nañu mooy leader ci CEDEAO ndax jëf ju rafet yi nga xam ne moom lay jëf Ablaye Wade dana ci indi ay témoignages waaye dinañ seeti Macky mbokk yi programme bi ñaari yoon lañuy ñamal parce que ñaari ci tegu surprise lay doon bu ko waxee nag xam nga da ngeen a xaarandi waaye nag loolu feem bu bees dañ koy làq ba ci kanam laaj la ma bi ku nekk ci réalisation bi Papa Samba Thiam waaw waaw waaw waaw ma kan moo dend moom ingénieur top waaw top top top mbokk yi jeexul xam ngeen ne ñaari caméra la benn jëmu kookoy yaawo yaawo e ñu am mbégte contentement bu mag ci lumière yi xam ngeen ku fa jaar DJ Leuz DJ gërëm nañu Kara sécurité Kara sécurité moo yor kaaraange équipe bu Kouthia ñu gërëm Père Assane Ndom mi yor sécurité centrale ak explication média ci biir Télé Futur kookoy Père Assane am mbégte contentement ci entretien bi nga xam ne ku ko yor mooy tonton bu ñu gërëmee loolu nag am mbégte contentement bu yaatu ki nga xam ne mooy chef de desk ambiance di Ora. Ora. Ora. jigéen ñi nga xam ne nag ñoo yor ambiance bi muy tar kenn ku nekk yaa ngi toog sa jëm di kan ak kan. Papa ci am moo yor production xam naa nag mu ngi ca yoonu Touba bi war a mu jàppandi ñu ngi koy nuyu Papa Doudou gërëm nañu képp koo xam ne yaa ngi seetaan war a ngay bàyyi xel ci rajo ak Télé Futur Média di gërëm képp koo xam ne am nga mbégte ak contement ci Télé Futur Média mbokk yi xam ngeen kan mooy ñëw ki nga xam ne moo jàpp yoonu boppam américain te ay anglais ku ko dégg daa dee tëx kookoy mbay kamoon mbay kamoon hiya moon kamoon e eh, moon kamoon mbay kamoon hiya mbay kamoon mbay kamoon mbay kamoon hiya mbay kamoon e mbay kamoon eh, mbay kamoon hiya mbay kamoon ca mbay kamoon mbay kamoon hiya mbay kamoon mbay kamoon mbay kamoon hiya mbay kamoon e mbay kamoon mbay kamoon hiya mbay kamoon eh, voilà Yes, Mr. yes, yes, yes. Mr. Mbaye, Mr. Mbaye. You are now. Mr. Mbaye. I'm dumb, dude. I, I, I, I howl America. Yeah. You know, and put up Kujaso. Yeah. On high America. Yeah. Yes, yes, yes, yes. Yeah. Yes. yes. Mr. Mbaye. <laughs> Yes. How do you? How are you two feet? Nice. Nice. <laughs> ah, nice. Thank it. Thank? Thank it. Thank it, mooy lan. Thank you. Thank you. Okay, mais thank it ke bu mu tudd. Yeah, yeah, thank it, Pa. Mbaye. yes fan nañ commencé fii wala fii nañ jëm nañ bii nag moom mooy laay soft skin soft skin mu ngi tas dëkk bi dégg leen ko soft skin xam nga ma ci neex waaw période tàngaay boo ko boo ko diwoo waaw da ngay mel na yëgoo tàngaay waaw seddaay bi tamit mu mel na yëgoo seddaay bi waaw xoolal bii mooy avocat bi tic avocat mbay bii ak crème bi boo ko boolee. waaw li ngay résultat bi ngay seet moom da koy gis. waaw lim lay lan lay. maanaam boo ñuulee. waaw soo ko diwoo. waaw day gën a génne sa éclaire ñuulaay. éclaire ñuulaay maanaam da ngay gën a taaru gën rafet macha allah. éclaire bii aloe vera bi la. aloe vera waaw. aloe vera soft string. waa Sibop ñoo koy distribué. waa Sibop ñoo koy distribué. gis nga aloe vera bi. boo ko boolee crème am mbay xolal. sa yaram day nayi. du xasan du xasan am picc. du am ba pare foo toog nag ànd ak xet gu neex. waaw mbay gis nga avocat bi. waaw avocat. soo ko diwoo. waaw leer bi ngay leer. waaw tey bi ngay yor. waaw melax bi ngay melax. bi ngay melax briller bi ngay briller. bi ngay briller rek moo la ko mën a jox avocat. boobu rek moo la ko mën a jox avocat. bi nag maa tax maa xam lu tax ñu tuddee xam nga koko bi. yes non seulement da ngay am xet gu neex. waaw ñu bëri yaakaar na parfum nga tuuroo. ba pare xolal du la lakk. yes du la xasamloo. yes doo la génne ay picc. foo toog dangay ngay ci say biir moroom foo fekkee ay ñu weex tàll boo fa toogee yaa leen di gën a briller. boo xeesee mu gën laa xeesal. waaw boo ñuulee mu gën a génn sa éclair ñuulaay. oui ma. ah waaw wax dëgg waaw waaw wax dëgg Mbaye waaw waaw yow yow nag yaa yaa may gindi loolu yow gindi. tàggal maa ko mos yi. est-ce que dafa xew. ma ne. la illah dama foogoon ne paa ko bëgg mais nekk na jeunes yi ñoo ko gën a bëgg. wuy ma te bitig yi. bitig yi euh, kay ma may la si. waaw est-ce que xam nga léegi xoolal lii sax dafa commencé jar. non man dama lay wax lu leer. dama foogoon tàngal mag la. waaw xale yu ndaw yi ak jeunes yi nga xam ne ñoo am 18 ans jëm 20 ans moom nañu taamu. parce que mbay bi xet gi muy bàyyi sa gémmiñ mant bu neex bi waaw ba pare xoolal dafa civilisé daal mbay dafa civilisé mbay yi mbay loolu mbay loolu après ñu waxtaan ci avec les les manières là meraa ngi nii mera da ngay leer sa kanam leer ba pare xolal say bëñ di melax mbay xolal bi am na bu xale am na bu mag te njëg bi noonu la yombee te dafa xew ci jamono foo dem ci région yi dan ko fay fekk waa mbay bu loolu jeexe nag lu tax waa Madaar ñoom ñu jublu ci lu set ak lu leer rek la santé et la malaise avant tout ban malaise ah mbay gaa yu jóg soo te tey yaa ngi ko malaise maa da ngay waaj a malaise <laughs> mbay Madaar bi mooy omo bi nga xam ne Uh-huh. bi nekk ci madaar liquide bi. bi nekk ci madaar liquide moo nekk ci madaar pëndax bi. moo nekk ci madaar pëndax bi. ni liquide bi di def. waaw moom la pëndax bi di def. ñu dem ci Noura. Noura baa ngi nii. mais mbay xam nga Noura bi tax mu baax. waaw xam nga bi ma invité keroog sa kër dama grand kaay ñu naan ataaya. <laughs> dama ñëw na la mbay lu tuuru sa douche. waaw ma dara tuurul. dara jékki-jékki. muy xeeñ nga ne ma mais gannaaw effectivement est-ce que dara tuuru sama douche. waaw ndekete nura bi nga xëy démb. def ko ci moo doon xeeñ tey. te doon xam ah? a bàyyi li mu ah, man loolu moo ma jaaxal non mais xet gu neex mbay te yow te te yow mbay da nga bëgg douche. te xam nga ku bëgg douche rek mooy maanaam ku fay dem chaque instant te teewul loolu xet gu neex lay xeeñ mais mbay ma madaar bi lan la dalaa metti bëggoo douche wala bëggoo douche ma xam la yow booy wul téléphone sax douche ngay wuyoo mbay gis na madaar bi dafa am njëriñ. waaw parce que bi mu fi nekkee ba tey jógewu fi. waaw moo jur Noura. moo jur Noura moo jur Jetol. moo jur moo jur bi. man Jetol nag moom a gën dafa maa jaaxal. mais benn booy bi raxas oto nee na ma grand. waaw man mbay sama fans la ne ko rek mu may benn litre madaar quoi. parce que mun ah. naa ci raxas cinquante quatre oto. wuyu ma ma mbay booy ne na na dem jëndi. non sa sa la mbay. sama fans la dimbali ko rek. déedéet garaaw na dem na. booy Cees la yow Cees. su ma ko su ma ko mayee. waaw kenn ñëw mën naa ko see may benn mën na dem ak moom ñaari may. bii cinquante quatre oto nga ci raxas. ah waaw booy la may ko. ko may. may dem jëndi. xeex ñaari taalibe yi. Ah. xam nga bay booy bi daggee. Ah. dañuy dem naan dañuy dispensaire. maa yëkkati lii rek. toqal ko ci ndox wuy ma waaw. leer na ma ni nag. que dégg naa say jaloore. waaw dégg naa si koñ yi ngay wër ko sa poos. <laughs> ku dagg nga <laughs> ñàkk am mbay xolal nii laa def. waaw taalibe bi nii laa def ci taalibe teg mu fermé wu. te xel mu lay bàyyee xoolal gis ñu dara gis ñu dara microbe yëpp lay faj. mais mbay. waaw kër aram jàppale. kër aram jàppale. kontaan eh, euh, naa jàppale. mi ngi may defar. waaw kër jàppale mi ngi may defar. teur bi la may lii. laay nee na ma machine kër aram jàppale la ko ñane. Babacar nuyu naa la. nee na tuuti na tuuti la joxe jox ko waaw nee na mu joxe tuuti ñu jox ko vingt u waaw nee na mu joxe tuuti ñu jox ko mu comprendre lu woon moom benn machine rek ngay joxe avance ndekete loo joxe yaay xool bu la bu la ci neex ñu jox la ko ci yooyu gis nga njëriñam man mbay kaay mbay dafa am benn benn rumeur ci kër gi commencé na dama lay wax rek. <laughs> mbay mbay ak ñi mbay mbay xam nga yow. Ah, xam nga père laay. laay benn xam nga sa xarit la. moom mooy sa tuteur maanaam moom moo la mbubboo fii. laay man laay benn bi nga xam ne mooy sa protection fii. <laughs> sa waaye la waroo am teranga di ko nëbb. waaw euh, Dame fukki nit Dame Ndoye cinquante mille. Dame Ndoye xaalis bi Dame Ndoye xaalis bi mu <laughs> la yónnee. dam <laughs>

nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak suñu sponsor yi Noura Jetol ak euh, Mera rawatina nag tàngal mant mos bi nga xam ne nag jeunes yeeg mag ñeeg ñëpp ñoo ak soft sing bi nga xam ne si bopp moo koy euh, euh, yoon bi nga xam ne nag mooy yoonu gi ñuy ziar kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew rawatina suñu bàyyi sëñ Sidi Mokhtar Mbacke yal na yàlla may fan koy ziar fan bu gudd ak wér-gu-yaram Thierno Bachir Tall chef religieux nekk ci Louga yal ko yàlla may fan bu gudd ak wérgu yaram dëgëral taxawaayam ci biir réew mi xalif généralu Laayeen yi Chérif Abdoulaye Thiaw Laay ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wérgu yaram suñu bàyyi Cerno Sama Sama Morabi ñu koy ñaanal fan bu gudd di ko ñaanal tamit wér ak alaaji Cerno Madani Muntaga Taal yàlla ko fa yàlla bàyyi mu nekk suñu kanam lool ak Cerno Bokar Alpha Ba ca war a euh, euh, nekk nag foofu ca euh, dëkk bi nga xam ne mooy mooy Kolda actuellement nii mu ca Nice ca France ñu koy

Babacar Abdoul Aziz Sy di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla bàyyi ko jàmm mu nekk ak jàmm tamit uuf njabootu Tijaan gi yëpp ziar nañ tamit euh, Serigne Maodo Sy bu maam Abdoul Aziz Sy rabiyàlla taala anhu ak suñu papa Alaaji Seydou Sow dëkk ca Passy di yeewoo ca zone A yàlla na ko yàlla defal jàmm gërëm nañ ko bu baax ak nga xam euh, na ko Karim Mangane ñaari soxnaam Sadio ak Fatima di gërëm tamit bu baax ki nga xam ne mooy cardinal Théodore Adrien Sarr ak euh, monseigneur Benjamin Ndiaye di sama xarit di ko ñaanal tamit mu yàgg lool ci euh, jàngu bi nga xam ne moom moo ko jiite ak li nga xam ne nag moom mooy euh, yoonu Yesu Christ Christa ñoom ñëpp nag ñu leen di gërëm di leen sant rawatina cardinal Théodore Sarr waaye di nuyu sama yaay bopp di maître Fatima Fall responsable politique nekk ca Ndar di nit ku baax ku am solo yàlla ko yàlla defal jàmm waaye nag sama baay ñu ngi koy nuyu di Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Tivaouane di yow Budi ak suñu yaay Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ziar nañ ko ziar bu wér rawatina nag euh, waa Ñanka Edi Thierno Mamadou Hadama Gaye xalif bu Thierno Hadama Gaye ca Ñanka Edi waaye tamit di nuyu Baye Cheikh Mamour Insa Diop chef religieux à Dakar gërëm nañ ko sant nañ ko bu baax ak ki nga xam ne mooy Serigne euh, Maam Thierno Dem ñu ngi koy gërëm dem nag ba ca Saalum nuyu Alaaji Basirou Touré Alaaji Serigne Touré Serigne Basirou Ndaw Maxi Touré ca Daaru Salaam Modou Touré Moustapha Touré Alaaji Muntaha euh, Touré ak Serigne Khayru Touré ci Medina Salaam seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show rawatina nag képp koo xam ne yaa ngi waajal yoonu màggal bi euh, maam Thier euh, Serigne Serigne maam Thierno Mixdaat Mbacke mi nga xam ne nag moom mooy Serigne Abba caméraman fii moom tamit ma ngay waajal la nga xam ne moom mooy màggal gi ca xam naa ne dal ga dana neex ndax taalibe yaa nga ca wàccaay ga ñëpp yàlla nag ñu doon jàmm dem ak jàmm ñëw jàmm mbokk yi nag am na ku ñu seeti Macky Sall nañu seeti Macky Sall nag lu tax ñu koy seeti dafa jóge ci réew dem ci réew jóge ci réew nar mi nan la Macky Sall taxawee ca États-Unis ak ndombo tànk ba nga xam ne dañ ko ko takkal foofu ci biir unis ñu seeti Macky Sall mbiyee Sall soo xaalee jaboon Macky Sall ari miyee Sall soo xaalee jaboon président ari. bi yeesal soo alee nga bon lam tooraari mi yeesal soo alee nga bon président ari mi yeesal soo alee nga bon Macky Sall ari e mbeji sammal yammoolo borobo le président de tous les Sénégalais sans exception de race ni de religion et d'ethnie yaa njaboot ñëpp yaa uf ñëpp yaa bëgg ñëpp waaye sàll ngaari waay lam toor lu la neex defal bu la neexee biiju bu la neexee sañse bu la neexee reetaan maa ngi leen di sant ñu ngi ak contentement ci waa Sénégal ak adduna bi yëpp ñi xam ne ñoo ñu wër toj naa États-Unis toj New York ak Washington jaaxal américain yi ndax waa Fonds monétaire international di FMI ñoom ñoo ma takkal ndombo tànk na ma Afrique saw jant CEDEAO yëpp yow nañu ñu yow yaay président bi nga xam ne yaa ci gën a jantal ci xel ak ci kanam ak ci jikko ak ci li nga xam ne mooy jubal ak émergence fii la ñu bàyyi président bu mel ne Alassane Ouattara IBK ak Kaboré ak yeneen président ñu xool leen ba ñu xool leen daal ma ci sempi na ma cupit na ma payi fale na ma yow yaay bi na ma man maay doxal démocratie ni mu waree maay ki nga xam ne lu ma wax dama koy jëf li ma jëf day wane mu leer nañ waaye dëgg la man wane wu ma de ñoom ñoo ma wane ñoom ñoo ma xool ne saytu nañ sa liggéey yónn nañ ay américain ak ay français ay chinois ay japonais ñu dugg Sénégal laaj leen ñu naan kii ndaanan la kii liggéeykat la kii waxam bëriwul dëgg la waay dëgg la waay am yeneen ndam de mais li ma ci gënoon ne xam nga lan la biñ may présenté président bi nga xam ne toogagul di Donald Trump dañ la ma kii fii ak ñaari weer moom mooy toog Obama yëkk si téléphone bi jox ma ne ma waxal ak moom parce que dëgg nañ ne moom ci boppam dafa jël ay décision yu taaw yoo xam ne dafa fas yéene gépp koo xam ne immigré nga clandestin nga mu gën a la ci dëkkam ba pare jullit yi nga xam ne dañuy def naka su dul noonu mu gën a leen. eh ëpp naa Obama mun na naam ma ne ko kii du ma wax ak moom en l'instant parce que il faut ma xaar mu lal benn sénégalais. Obama ne ma non calme ma ne ko non. Obama ne ma jël jox ndox jox ma ma naan parce que xam naa sama yaram tàng na. Donald Trump mu paas ma ko. yéen a may dëgg. ma ne ko allo. Donald Trump mu ne ma non je suis président ma ne ko nekk ko président dañ la ko fal waaye ah, toog billa yaa am fit mu ne ma yow yaay kan ma ne ko man maay ki nga xam ne maa dalal Obama Sénégal yóbbu ko gore won ko lu musul gis man maay président Macky Sall xam nga ne am nga ne président boo xam ne du yaafuus président bu am fula ak fayda ndax sénégalais yi ñoo ma teru ci aéroport bi ne ma ñun dañoo jaaxle ndax suñu nekkin xamaguñu ndax dañuy toog war dañuy dem ci xam ma ne leen tey la seen tey guddi di leer Donald Trump naa mooy yow toogu ma sax di commencé xuloog yow ma ko noo ñu dañuy jéem a waxtaan ci li nga xam ne mooy am maa lay xamal dara de waxuma Sénégal sax waaye Afrique saw jant dale ko ci malien ivoirien burkinabé ko ci laal man nga laal te koo ci laal ba mu xam ne man nga laal man nga ko ba maa daal di may ko wan ma teñ bi ne maa ngi ni rey naa ko ma ne ko may ndaanaan na seen xel dal benn Sénégalais duñ ko falal Sénégal non na seen xel dal kenn doo ko laal Donald Trump dafa taxaw xool ma après jël otom ñëw gaare na ma yow kon li nga wax man yow yow yaay Macky Sall ma ne ko waxal président mun ne ma wax nga dëgg mu ne ma pourquoi waxoo ma président ma ne ko parce que toogagoo ah, mu ma may xool na ma lan nga bëgg ma ne ko dama bëgg nga signé nag doo laal benn sénégalais rawatina africain mu daal day xool ba si yàgg di lox maa ne ngand de mu commencé lox danga ko looy lox mu ne man non parce que bu président yëpp defee nii man sama kaddu dinaa ci dellu muy wax di kee man naan man est-ce que dama war a xaar ba toog soog a mu ko poñe mu ne man noo tegg sa loxo xam nga man gaaw gaawuma dóore waaye président bu dem dëkk jàmbur di dóore ma ne ko léegi garaawul amul benn problème ci la mo waxee na ñu kafooree affaire yooyu mu expliqué ma ne sax na moom mës na jaar Sénégal yàgg na na ma nag garaawul léegi yow naa la may loo xam ne du ma ko may beneen pays africain yéen sénégalais yi nekk états-unis tëdd leen ba xandoor kenn du leen laal kenn du leen jege kenn du leen xuxal ndax états-unis seen économie bu doxee tey yàlla sénégalais yi ko doxal am na dëkk yoo xam ne baatu allahu akbar musu fa nangu sib sénégalais ñoo njëkk a nodde états-unis ay dëkk yoo xam ne ay ussan la ñoo fa njëkk a yëkkati ay xasaayid ñoo fa njëkk def ay bés yoo xam ne bésu tijaan la gàmmu màggal kon loolu tey sénégalais bu ñu amee sañ-sañ ba def ko dañoo xool seen président bi nga xam ne du yambar fanaanoo te du yaafuus waaw waaw dëgg la maanaam Macky gay na nga la tooñ te mosu la ñeme Macky gay waaw waaw waaw ne Macky gaynde nga. dëgg la te musu la ñeme Macky gaynde nga. waaw waaw. président yaay gaynde. yaay gaynde. dëgg la Sall yaay gaynde. yaay gaynde. Doglo Doglo Doglo Doglo Doglo Sallangari Yaay gaynde Yaay gaynde Ayco ayco ayco ayco Ayco Waaw gaynde Waaw war na gaynde Maki war na gaynde Maki war na gaynde Maki war Gaynde war na gaynde Waaw Eh gaynde war na gaynde Doglo gaynde war na gaynde. oh. gaynde war na gaynde. tey ñu ànd ak euh, techno plus euh, bi nga xam ne nag moom mooy 6 euh, bi ak 6 plus bi techno wax nañu nag fantôme la lépp loo xalaat ci téléphone rek am na ci dem na ci ba dañuy cri sa téléphone bu demee ba déchargé de 5 minutes de communication mun nga ko chargé 5 minutes mu defal la 2 heures de temps gis nga moo nekk ni 6 plus bi am na njëriñ trop waaye nag 6 simple bi nag moom tamit ñaari appareil ñoo ne ci biir. benn boo xam ne nag euh, photo boo xam ne mën naa jëli nit ki fu sori beneen bi nu mu gën a jegee rek kaamil alxuraan mun na ko télécharger ci biir waaye tamit ay série yoo xam ne nag day dem ba une heure deux heures temps da koy jël euh, téléphone yi am na njëriñ trop euh, gis ngeen ko kon mbokk yi nag ñu ngi ànd ak ba tey waa Tecno Phantom 6 plus ak 6 simple bi am na njëriñ dina ñëw ci kanam wax leen nag fan ngeen ko mun a amee ak ci yéen bërëb ziar nañu sëriñ Amsatu Mbàkke fils de sëriñ Subeeru Mbàkke Baay Fallu borom daara ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit euh, waa kër Abdou Salam euh, sëriñ Abdou Salam Ngom yëpp nekk foofu ca Njaxat euh, ca Bambey di nuy tamit taaw bi sëriñ Omar Ngom ak sëriñ Saliou Ngom sëriñ Mam Cerno Ngom sëriñ Seer Ngom sëriñ Fàllu Ngom nekk ca Njaxat ca Bambey ñu ngi leen di gërëm di leen sant foofu ca Daaru Salam waaye di nuyu sëriñ Gora Sey président mouvement les serviteurs de l'islam di am mbégte contentement bu mag ci toute la famille Dianté nekk nag fële ca Euh, Padois Builders la famille de Mamadou Lamine Dianté euh, syndicaliste et toute sa famille à la Padois Builders Pape Ousmane Dianté Amina Dianté Diakhou Dianté euh, Yankoba Dianté Namata Dianté ak Dior Dianté ak Mamadou Aydara ñoom nag seen dédication ñoo la waaye tamit di nuyu maire ajaratu Maymouna Ndiaye aéroport nañ koy nañ koy dàkkalante maire Adja Maymouna Ndiaye aéroport ñu ngi koy nuyu ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram moom nag nee na Kouthia boo damay kontaan xam naa na dañ ko defal spécial accélération ndax moom ajaratu euh, Maymouna Ndiaye aéroport nag dafa kontaan trop ci li nga xam ne mooy émission Kouthia Show rawatina nag li nga xam ne moom mooy kaf euh, yeeg foore ci am la part de Amina bi nekk fii ci euh, Kouthia Show Sellou Diallo ak Assane Diakhaté Assane Gueye euh, Assane Sey Mouhamadou Mansour Gueye Maymouna Ba waa expert groupe voyage ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp Koumba Diagne Chéri Matar Sey ak doomam bu ñaan caana Sey Marème Sey ak euh, ñoom Adja Adama nekk ca Fass ak suñu yaay Adja Ndeye Soxna Mboup yaayu ki nga xam ne moom mooy Bigué Euh, Bigué Diagne ñu ngi koy nuyu tamit euh, sans oublier Ablaye Ndiaye nekk ci pa nekkoon ci pa gént l'homme de euh, Rufisque ñu ngi koy gërëm di ko nuyu Matar Kabitike nekk ca Wakam c'était excellent et tous les délégués médicaux coupeurs de pharma de Euh, Cooper Pharma de Yoff Apexi de la part de Koumba Diagne nuyu nañ ko sans oublier Bigué Diagne borom anniversaire bu neex boobu rakki madame Ndiaye borom jeu de dame Anne Marina sama soppe la di nuyu borom këram nga xam ne mooy président euh, FC Tëngéej ñu ngi bu baax euh, Tëngéej FC waaye tamit di nuyu Khady madame Kéré borom Dame Pompadour sama xarit la nuyu naa ko ca Anne Marinas am mbégte contentement bu baax ci Pape Seye jàmm gën taalibe Bamba la ngi koy gërëm di ko sant mbokk yi nag ki ñu dem mooy maître El Hadj Diouf que maître El <laughs> Me El Hadji Diouf dafa nekk ci diggante bu doy waar ndax avoca la boo xam ne ci Barthélemy Dias waaye bu leen fàttali Me euh, El Hadji Diouf avocat la jëmale ci Aliou euh, Aliou Sall ci affaire pétrole bi am na ñoo xam ne ñu ngi laam-laamee ndax moom mën naa nekk kànje wara a supp kànje lu ci mënti doon daal moom mooy tontul boppam ñu dem seeti Me El Hadji Diouf layal bi muy layal Barthélemy Dias ca cool yi nan la cay génnee ak nan la ca duggee ñu seeti Me El Hadji Diouf saalum saalum bu mag bi nga xam ne mooy avocat bu mag bi nga xam ne ci réew mi <laughs> maître El Hadj daal mooy avocat bi nga xam ne mooy avocat mag daal ñu seeti El Hadj Diouf. El Hadj Diouf bu mag a El Hadj Diouf bu mag a eh, El Hadj Diouf bu mag jërëjëf waay jërëjëf waay euh, kontaan naa euh, yàlla dama kontaan Saloum Saloum bi waaw euh, man man man El Hadj maa sol sax télé bi di mel ne kuy meeting ndax sama yoroo la laa war a sol waaye dangeen maa fekk ci bunt tribunal bi di ma laaj lu tax man may plaidel Barthélemy Dias waaye Barthélemy Sénégalais la dañ ko tooñ Barthélemy ah. dañ ko tooñ dañ ko dañ ko parce que Barthélemy booy la te nekk ci biroom ay Samba Sula Baare ñëw rey bu rey moom tamit mu génne pistolet pour aar boppam ndax am na soxna am na doom léegi ki nga xam ne moom la ñu rey expert bi nee na bal bi nga xam ne moo rey waa ji mais bal boobu génnewul ci pistolet waaye mais mais mais loolu leer nañu léegi moom bi mu àndee ñi nga xam ne ñoo ne ci nguur gi. waaw waaye dama ne boobu ñu ngi ko doon raxas dëgg gi naa am. fekk Abdoulaye ne ko ràpp ci kaso bi. yaa eh ñu daal di koy génnee biñ ko génnee ñu ne ko génnee ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon di xeex Abdoulaye Wade ñoo ko génnee. waaw ah, léegi moom moom mu am sañ-sañu politique gisee neneen. ñu ne ko doo gisee neneen ni Macky di gisee wala ñii ni ñuy gisee nga war a gisee. ah kon daal dañ ko mere. wa wa voilà mbir mi xamal la da ngay fi may xool ma xool la li nga bëgg gis xooloo feneen fi ma bañ a xool ñu wan la leneen loo bëggul gis. Eh man man ñu bëri dañuy El Hadj Diouf nan la mën a àndal ak ànd ak Macky ko des fois mu dem ànd ak ñoo xam ne xeex Macky Sall pour xeex Macky Sall waaye man sama liggéey laa ah, man sama defoon lu ma dund. man ci lii liggéey. doo chauffeur doo menuisier doo mécanicien. lii dama ko jàng muucu ko naan ko dama cee mandi. Eh, dama ne dossier bi. Ah. boo ko élèves yi nga xam ne ñu ngi soog a jàng affaire avocat dañ koy gëmm daal koy plaider. ah waay sabo c'est c'est un dossier vide. na boo xam ne dara nekku ci. xam nga léegi pour ngeen comprendre ko yow nga nekk père de famille sa doom dem ñu tuumaal ko ne dafa doom dafa dóor doomu jàmbur jàmbur boobu daal di jël sa doom tëj ko si kaso bi yàlla di dox àdduna dox ba nga am kattan boobu mun a génnee doomu jaamur boobu sa doom nga génne ko wala ñu dem ci biir sa doom ne waaye man sa papa li <laughs> muy doxalee neexuma léegi ni kee di doxalee noonu laay dem doxalee beneen façon nga ne ah léegi sama doom nag léegi léegi man fi may xool xoolu ko waaye léegi xaaral ma doy laa ko ci kaso bi waaye dama ne loolu dafa yomb dafa yomb dafa yomb dafa yomb trop waaw waaw dama ne dégg naa ay seytaane yu wax naan Alaaji Diouf waaw dañ ko war ci àndam parce que tey mu ànd ak Macky Sall soo mu xeex ko dama ne eh man Macky Sall Macky Sall ne ma man du ma ko ne amul dossier Aliou Sall bokkul ak dossier Barthélemy Dias ah, déedéet du benn ah. fee dama fay gagné fii dama fay gagné lii mooy sama liggéey lii mooy sama liggéey de sama doom bi ma jur sama doom bi ma jur bu demoon xaañ doomu jaambur doomu jàmbur ñoo ne ko sa doom bi yaa ah, bëgg porte plainte kaay nga plainte ko keroog sama jabar ni ma bàyyi <laughs> waaw waaw damay dem eh, eh, eh, dama ne damay dem plaidel doomu jàmbur ngir ñu tëj sama doom loolu loolu c'est la loi ah, def waaw kon dama ne Barthélemy dañ koo tooñ ci kaw ba ci suuf te liñ ko tooñee du leen lu dul que lii du leneen lu dul politique politique moo ko nii waaye am na loo xam ne bu politique ñëwee nag dañ koy politiser bu justice ñëwee ñu daal di koy def justice waaye day am na yoo xam ne bu ko jaxasee kii Macky Sall man Macky Sall xam na ma danaa wax ak moom naa ko woo xaaju guddi non damaa wax ak moom ci maan na ko Macky bul déglu gars yi da lay yàqal élection yaay waay que kii papam papam xam ngeen nga man man man li may sóor yéen Jean Paul Dias ci boppam. waaw ah. Sénégal kuy gën a ñànge moo gën a ñànge. da ko gis mu ne tekk waxagul ba tey bilaay bu Jean Paul Diaz waxee àdduna tukki da mag yi mag yi yaa may xool bàyyi mu jàll mag yi bàyyi mu jàll xam nga naa waaw bàyyi jàll gars yi lay na xamuñu fu muy yem. Macky bàyyi xamuñu fu muy yem Macky bàyyi bu jàll xamuñu fu muy yem. bàyyi bu jàll xamuñu fu muy yem. bàyyi bu jàll xamuñu fu muy yem Macky. dana yàq dana dara waay dana yàq dana dara waay. am na amul solo bàyyi bu am na. amul solo amul solo amul solo amul solo ses anniversaire à Thiaba Ndoye euh, bi nekk fii ci groupe Kouthia Show ñu koy ñaanal ak anniversaire bu neex nag euh, boo xam ne wax dëgg yàlla euh, bu am solo lool mu koy feeti at bu nekk yàlla def ko ci jàmm ak xéwal de la part de toute l'équipe de Kouthia Show ñanga jaara moom ci boppam ak Aminta ñoom ñëpp ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire moom caba Ndoye di ko ñaanal tamit fan bu gudd ak wér gu ak toute la population de fi mu dëkk ak fi mu yeew ak fi mu waaj a jëm ci tubaa ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire waaye tamit di nuyu bu baax Kiné mbay madame Diagne nekk ca France Sedan et euh, son son borom kër ñu naan ko Jibi Diagne euh, di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram di nuyu tamit professeur Amath Dansokho Aliou Cissé entraîneur équipe nationale ñu ngi koy encouragé di ko xaman ne ko Afrique du Sud gagné wu ñu arbitre bi moo ñu gagné te ñu ngi ci am tey dañ ko gën a dooleel te bu am benn yoon kersa ci euh, gi ndam bi nga xam ne moom la arbitre ghanéen bi am ci kaw Sénégal di deux buts yi nga xam ne moom la ñu arbitre bi ghanéen daa dee gagné. ñuy nuyu tamit bu baax Kheuch Dadi di ko féliciter tamit bu baax moom tamit mu ngi euh, mu ngi remercier tout l' ensemble du personnel qui l'ont soutenu pour la bonne marche du show de l' entrepreneuriat monsieur Malick Cissé président MZM mouvement deuxième souffle ñoom tamit euh, ñu ngi leen di remercier waa plan Jaxaay cité kër euh, Kaay Baax Yëmbal benn barak ak l' ensemble des éléments de M de SMD moom ñëpp nag Kheuch Dadi mu ngi leen di gërëm di leen di leen jàmm. waaye sëriñ Abdou Karim Mbacke xaritu cabandooy moom tamit ma ngay ñaanal caba ci anniversaire bi mu doon jiglaayam ci moom dabandooy chéri Abdoulaye moom tamit ca yof ngapparu mu ngi koy souhaité joyeux anniversaire Khadim Ndoy 100 pour cent CSB ma ngay souhaité caba joyeux anniversaire Fallou Mbaye géwalu sëriñ Abdou Karim Mbacke ma ngay souhaité caba ndooy joyeux anniversaire Kab Mbaye bayti soxo nekk ca Touba ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire Ndeye Ami Gueye yaay Fallou Baye Karim Mbacke mu ngi koy souhaité joyeux anniversaire soxna Ndak Ndiaye Mbacke Baaw la dëkk mu ngi souhaité joyeux anniversaire à Thiaba Ndoye kon nag euh, <laughs> non man dinaa dee rek te sama dee jot ajaa Adja a Ndiaye nekk ci aéroport ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram waaye tamit mo cof ci rek euh, fenn fu nekk mo cof ci ñaar Fatima di nuyu faatim Diagne depuis kawlak yaayu euh, imam ayda Ngom depuis Paris bëgg ku Kouthia di nuyu tamit uh, Aïda Chéri Pa Vieux nekk ca Kaolack ak Ndiaye Diagne depuis Kaffrine di nuyu tamit uh, Marème Poulo animatrice bu mag bi nga xam ne moo nekk Thiaroye góor gi Jatu uh, Gaye Chéri Modou ñu ngi koy nuyu ak Ndey Xaar Gueye ñoom Sané depuis Thiaroye et tous les élèves Gorotine marché Thiaroye commerçant portable Daaro Thiam dina ma neex ak lu mbay Fodé maman Aïcha Maymouna Ami Diagne Baye Diop ak Fari Mbay waa Leuz Média yëpp bëgg Kouthia nday ami mama euh, mama coiffeuse bu mag bi nekk fële ca euh, ca ca Diallo ñu ngi koy nuyu ak ki nga xam ne mooy moor depuis euh, depuis Espagne chéri Anta Moron nuyu nañ leen bu baax waaye tamit di nuyu Ndeye Selbe Linguère Diop présidente GPTS di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Pape Doudou Mbocc Ndeye faatu Géwal depuis Kaolack ak Nabou Thiam depuis Kaolack Serigne Dame xaritu Laay Cheikh Mama. Euh, Thianko Ndeye Ami Ndaw depuis Italie ñoom ñëpp ñu ngi leen di ak ki nga xam ne nag moom mooy euh, Ndeye Siga Mar yaayu koddu am nañu mbégte contentement mbokk yi ànd ak li nga xam ne nag moom mooy soft skin Madar Nera ak tàngal mant mos dolli Techno Phantom 6 plus ak 6 simple bi ñu ngi di nuyu di gërëm une fois encore euh, ki nga xam ne nag moom mooy Fatima Evans nekk assistante réalisation ñu ngi koy nuyu ak ki nga xam ne nag moom mooy Euh, euh, euh, tonton Mag di ko gërëm di ko sant bu baax vraiment di ko remercier bu baax di nuy tamit Boy Pape Samba Thiam ak Rahma bi nga xam ne nag ma nga foofu ca régie ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant waaye mention spéciale à mon ki nga xam ne nag moom mooy tonton Mag di ko gërëm bu baax comme ni ma ko waxee keroog nag ñu ngi koy gërëm di nuyu tamit. Euh, booy bi mu dendal di booy Pape Samba Thiam bi nga xam ne euh, suñu booy la <laughs> ñu ngi koy nuyu booy Pape Samba Thiam di nuyu nag grand tonton mag bu baax a baax tonton mag ñu lay nuyu di la gërëm bu baax di la nuyu bu baax encore une fois di la gërëm parce que xam nañ ne yow euh, suba di nga fi ñëwaat gannaaw suba yaa fi nekkaat moom Pape Samba moom ñu ngi koy nuyu nii rek quoi ko nuyu Pape Samba ñu ngi lay nuyu <laughs> Samba. <laughs> Pape Samba Pape Samba ñu ngi lay nuyu nii rek nuyu bu sew léegi na mbokk yi ñu dem seeti Karim Wade mi nga xam ne ma nga ca mu wax ñu lan moo tax tool yi tool yëpp ndax dafa waxoon day màggal si te baa ngi ñëw gisuñu ki nga xam ne mooy Karim ñu seeti Karim euh, tontam. parce que bi may génn fii dañu ma yoxosu oui tonton Idrissa Seck waxoon na affaire bi dil la waaye dafay nuroog dil de ah moom lay nurool parce que ñoom dañu ma wax ne ma doo dem foo xam ne am na ay sénégalais dinañ la yóbbu dëkk boo xam ne sénégalais yi ba réewul foofu ba pare ñoom ci même jour bi nañ ma defal passeport daal mais gangi gangi yóbbu ma waaye man tamit mënuma yore drapeau PDS ba pare dem toog bitim réew ni xujj di xoolee foofu la laa fay def toogaay bi yàgg na fi trop te nag comme que affaire bi dem nañ ba ñëpp di wax diil la garaawul nangu ne diil la quoi lay ñu de diil lay ñu léegi nag man. pour seetal sama der dama bëgg ne cëpp ñëw Sénégal bu ma ne cëpp ñëw Sénégal ñu daal di xam ne man mii am na loo xam ne moo ma taxoon làqatu di ñëw parce sama papa nee na ma comme que mbir mi dem na ba ñu koy lam-lami waxal dëgg bi rek man nag xaw ma dama jékki-jékki ñu jël sama loxo ne ko tapp ci passeport jékki-jékki ibbi buntu kaso bi jékki-jékki dugal ci oto jékki-jékki yóbbu aéroport jékki-jékki dugal ci avion jékki-jékki attachez vos ceintures jékki-jékki yow rek gis Qatar noonu la demee te loolu neexul bañ militant yi di xuloo naan Qatar ak kii Karim affaire te man namm naa Touba torop màggal bi dama ñëw. Ah. damay damay ñëw màggal. Eh, parce que tamit xam nga lan la. nit bu amee fulla moo ko may boppam. lépp laay wax mu jeex benn yoon. man soo ma waxee Karim bul am kersa rek ma wax leen. ma wax. xam nga nu mu demee. am ñoo ñëw benn jour ñu woo téléphone. ñu ne ma yow. buñ la bàyyee ci dëkk bi da ngay yëngal dëkk bi Macky Sall ne ma léegi xam nga leen da ngay génn nii waxa na génn na lee ma ne ko nii mooy fan mu ne ma kataa ma ne ko nale mooy fan mu ne ma dañu lay yóbbu fu gën a tàng fii dañu lay to do am di léegi xam nga lu ma bëgg ngeen xam ne man lii ma nekk fii du man maa ko bëgg ñoom ñoo ko sakku ñoom ñoo ko forcé imposé léegi nag jot jot na wax jot na damay wax ba dee parce que li ma indi fii loolu yëpp ay diil dama ne ay diil mais diil boobu man yëguma ko ñoom ñoo diil ba ma ñëw. parce que jot jot na te wax jot na te élection yi dina ñëw. te dama ne législative yi dina ñëw. dara du sedd dara du sedd damay ñëw. parce que Macky Sall li mu bëggoon duma ko ko may. pourquoi ma ko koy ñoom ñoo nax yéegal ma ci avion yóbbu ma fii. léegi nag dafa wax a leer nañ damay ñëw Touba nii damay ñëw Touba na lee parce que man murid la cent pour cent du dellu ginnaaw pourquoi dem ba ci biir ma ne jot fippu jot naa dama fippu parce que kersa la amoon bi may wax ak yéen yéen a même pour mu am kersa moo tax ma wax leen dëgg bi damay ñëw Touba di ma dem Touba ma ziare Touba ndax man Touba la am Touba mu ñaaman am am pourquoi Macky Sall bugguma teg bët parce que xam ne doole bu nekk sama gi moo bëri koo leen àndal koo leen bëgg koo leen fonk bëgg koo nopp man ngeen nopp Sénégal ma nopp maa nopp Sénégal ma nopp yéen laa bëgg il a Touba ila Touba. damay dem kenn du ma tere. kenn du ma tere. kenn du ma tere. bi mooy. dil bi dafa dil la woon. ay wey la mu ay sam wey la mu ana ana wala. ale woona wala. jéemee ñëw man jéemee jëm man jéemee jëm Touba man jéemee ñëw Touba man jéemee jëm Touba man jéemee ñëw Touba lan la lan la lan la koo leen bëgg koo leen nopp Sénégal koo leen nopp Sénégal Touba Touba leen nopp foo ci piri dañu ma nax dil bi tot dama sonn dëgg baa ngi dañu ma dil dañu ma ma galu si ñëwal ma galu ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si ñëwal màggal si gàcce mu ma jàpp gàcce li yëpp waruma nangu gàcce mu ma jàpp gàcce bu mu la tee màggal gàcce bu